ndaje mi nag benn la ci ndaje yoo xam ne bëgg nañ ko amal ci Sénégal gi fii lañ ko commencé Thiès euh, ñu ngi ko amal nag ci instruction monsieur le président de la république ndax jàmbat yi ñu koy jàmbat ci càccum jur gi daf ñu wax ñun ministère de l'élevage ak yeneen ministères yi ñu ko seq ak nañ jéem a waxtaan seet jafe-jafe yi nga xam ne borom jur gi dañ koy am ci wàll woowu surtout que nag càcc gi. dafay di loo xam ne mi ngi gàllankoor élevage gi xam nga bu fekkee ne da ngaa ndoorte bëgg a def élevage jël sa alal def ci nga commencé ko ñu sàcc la ko dootoo sawar del siwaat donc loolu dafay gàllankoor élevage donc moo tax réunion bi gis ngeen fi waa gendarmerie gis ngeen fi waa police gis ngeen fi waa justice gis ngeen fi ñi nga xam ne ñoo yor ministère économie Euh, numérique et communication gis ngeen fi également ministère bi nga xam ne moo yor collectivité liñ ci doon wut nag mooy càmbar stratégie bi nga xam ne euh, tëraloo nañ ko ci at yële stratégie nag mooy wax ne ci ñetti ponk la tëdd benn bi mooy ñuy li ñuy wax identification du bétail maanaam ñu fexe ba jur gu nekk ci biir Sénégal moo xam xar la moo xam nag la moo xam bay la moo xam mbaam xuux la bu ci nekk ñu xam kan moo ko moom ndax loolu fii ak matale wuñ ko bu nu sàccee jur Moussa Ndiaye ak ak ak ak Abdou Ndiaye mën nañoo sàcc Moussa Ndiaye ak Abdou Ndiaye mën nañoo sàcc kenn ki sàcc morom mi bu ñu demee devant le juge kenn ku nekk ne maa moom juge bi du am fu mu wéeru pour wax ne kii moom moom donc ke mooy sàcc bi donc loolu il faut que te loolu am na ci réew yi. am na réew yoo xam ne am na fa xar moo gis muy dox ñu koy sàmm nag woo gis daanaka am na carte d'identité loolu mooy identification loolu bokkoon na ci li nga xam ne euh, téye woon nañ ko comme élément axe ci stratégie bi nga xam ne euh, tëraloon nañ ko ñaareel bi amoon na également sensibilisation maanaam dafay di loo xam ne comme dafay am ci gox-goxaan yi ci quartier yi ci village yi nit ñi di xam ne lii lu fi nekk la ñu ciy waxtaanee ku ko def ñu xam ne yaa ngi ca ñu mën laa dénoncer wax ko waa gendarmerie wax ko waa police wax ko mbooleem koo xam ne euh, war nañ la ko yëgal pour que njàppali gën a mën a gaaw weeru fi mu war a wéeru loolu nag tant que defuñ ko day am problème boo xam ne duñ ko matale leneen li mooy. bi nga xam ne euh, indiwaat nañ loolu lépp tegaat ko ci taabal bi nit ñi wax ñu lan mooy ci seen xalaat ci loolu. yan jafe-jafe lañ am lu tax donte ne matuwaay yooyu jël nañ ko bokk na ci troisième axe bi mooy cadre réglementaire ak législatif bi nga xam ne euh, maanaam li yoon tëral ci ku sàcc lan lañ lay teg sa kow ñett yooyu mooy axe bi loolu biñ ko tegaatee ci kaw taabal ji. daxol ko ay ngi nii lan moo ci manqué ba tax càcc gi di continuer ñi nga xam ne nag ñoo fi nekkoon tey ñooy dund càcc gi ñoom lañuy ñuy sàcc ñooy borom jur gi ñii ñooy ñi nga xam ne ñooy wattu jur gi ñii ñoo ñuy aar gendarmerie ñii ñoo ñuy atte ñoo ñëpp nag bi ñu toogee waxtaan ne lii kat ba may liggéey ci lu euh, dakkal mbir mi amoon naa ci jafe-jafe ci lii kenn ku nekk wax loolu nag bu ñu paree ñu tënkaat li nga xam ne moom la ñu wax benn bi moo euh, ñëpp nee nañ identification bi moom allah kulli xaal foog ma am ak jur day am boroom li koy màndarga nag mooy kayit nga xam ne jur gi kiyee ko moom tey ba tey bu xëccoo amee bu ñu génnee kayit yi mbir mépp leer loolu mooy base bi donc ñun aussi dañ def suñ kenn kàpp kattan wuti alal ji nga xam ne mooy tax ñu mën koo matale ñu mën koo parce que identification au-delà de càccum nguur gi sax dafa baax ci leneen dana tax effectivement jur gi ci seen bopp buñ ko ñàkkee ak luñ ko mën a ñàkk dañ xam ne jur gi bés sangam waxtu sàngam ñekk nañ ko ci maladie bii et cetera et cetera lu ñu bëgg rek xam ci jur googu mën nañ ko dëxañ foofu donc la c'est important ñaareel bi euh, xarala yu bees yi. gis ngeen ko am na ñu fi présenté nit ñi jàpp nañ ne xarale yu bees yi kat jumtukaay la pour xeex càccum jur gi bu fekkee da nga am gétt goo xam ne dafa samp sa wetu kër wala sa biir kër nga am euh, système de surveillance boo xam ne ku fa dugg non seulement dana ko gis mais bu fa nit xasee ba dugg ci urmbal ba nga ko teg wala gétt ga day def ay lumière wala muy def ay sirène yoo xam ne ñu nekk ci kër gi wala sa téléphone na ko yëg loolu def naa ne lu mat a bàyyi xel la am na ku ñu présenté sax ne bu fekkee ne jur gi nga xam ne dañ leen di sàmm muy dox yow boo demee ba ci àll bi booy booy booy booy fanaan ci àll am na benn ñag virtuel boo xam ne boo ko defee jur gi buy génn ci ñag boobu donte dana nga neewal dana yuuxu machine bi dana yuuxu yuuxu boo xam ne da nga da nga mën a yeew pour ki nga xam ne moo buggoon sàcc mbir mi nga mën a nga mën a yuuxu yooyu bokk na ci ñetteel bi bokk na ci également ñu ne nañ taxawaat les village villageois maanaam ci gox-goxaan ci dëkkaan yi ci quartier ñu waxtaan suñu biir teg ay comités yoo xam ne lu mën a xew ci wàllu wale ci kële ñu mën koo mën a partagé dana tax ñun suñu bopp ñun aar suñu bopp ñun ñi nga xam ne ñoo yor jur gi moom ko mais dana tax également ñuy mën a jox information les forces de sécurité et de défense pour que ñu mën ñoo aar bu fekkee ne ak sunu jur sàcc nañ ko ñoom aussi ñu mën ñoo jàppale. bokk na ci ñi nga xam ne jàpp nañ ne ay sàcc lañ te mu wóor ñu mais ñu leen di boole waaye bu fekkee ne dama nekk ak sama jarbaat wala sama rakk ak lee wala sama dëkkandoo ñëpp jàpp nañ def sàcc te ñu naan duñu ko boole. mais ëllëg mu del si siwaat loolu nguur gi du ci mën dara il faut que ñu commencé ko ci ñi nga xam ne ñooy borom jur gi ñu commencé di dénoncer ñi nga xam ne njott nañ dañu sàcc ñu càmbar leen bokk xam ba xam li ñuy njott ñoom am na wala amul loolu def naa ne wax nañ ko benn axe boo xam ne également war nañ ko mën a euh, mën a. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne toll na ci juróom-ñaari ponk yoo xam ne tey retenir nañ ko comme axe boo xam ne ñun danañ ko mën a euh, wéyale. pour que ñu mën koo sukkandiku ci daal pour mën a gën a mën a xeex mbir mi lii ñu def mi rek nag danañ ko def Fuuta danañ ko def Jolof Jolof danañ ko def Sédhiou danañ ko def feneen foo xam ne foo xam ne càcc gi tar na ba buñ boolee lépp du ñàkk ñu amaat meen mbubb moo xam ne mën nañ koo tëggal la lutte contre le vol de